asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu maa ngi leen nuyu di leen ziara di dalal seen chaîne bi eh, comme niñ koy tàmm di defee rek tey incha allah nag secret bi ma leen fas yéene indil mi ngi jëm si wàllu am-am maanaam ñi nga xam ne ñu ngi am ay jafe-jafe si wàllu xaalis te ñëpp xam ne ne jamono juñ toll nii xaalis may faj aajo yi soo ko amul kenn du la respecté kenn faale dañ lay xeeb. jamono nag moo tuddee noonu te képp ku nekk mu ngi koy bëgg am faj ay soxla faj ay soxlaam boppam way juram doomam jabaram mbokkam xaritam maga rakkam ku mënti doon kon nag dafa nekk loo xam ne mënta ñàkk si dundu doomi aadama te ñu si bëri ndeysaan bëgg nañ ko waaye mënuñ koo am wala parfois mu xaw leen jafe moo tax tey incha ñu fas yéene ak yéen li nga xam ne ñun ñii dañ koy def di si gis ay résultats ñun ñii di wax ak yéen dañ koy def di ci gis njëriñ kon nag lépp loo xam ne ñu ngi koy def di ci gis njëriñ incha allahu rabbi dañ koy ñëw séddoo ko ak yéen ku nekk fi nga mën a nekk ngay mën a am di wéyee sa bopp te faj see soxla te kenn dool xamal dara dégg nga eh, soxla feebar yeeg am am yeeg ngénti ceet yi tukki yi feebar yi lu mënti doon daal incha allah yal na yàlla fajal ko aajo yi yal yàlla itam defal leen tawféex defal leen jàmm yokku leen ba ngeen yokkoo incha allah kon mbir maa ngi nii mm, xawaatim bi ngeen gisee ni ngeen koy bindee ñu ngi koy ràbbalante ak wa jaxantu lahu maala mamdudan bu ngeen gisee si digg bi euh, ñu ngi si maa ngi si si français la somme maanaam yow yaa xool euh, li nga bëgg su fekkee da ngaa bëgg euh, CFA la wala euro wala dollar loolu ngay bind si digg bi su dee un million de deux millions yow daa yaa xam waaye bul exagéré nag ndaxte bu fi bind loo xam ne yow mii mënoo ko am ndaxte yëngatu si la koy may dégg nga su fekkee ne ne ko nit kuy yëngatu nag bindal li nga xam ne moom nga attan bu ko defé ñaar nga ci bind benn bi dang koy jël nga gadd ko ci yow def ko téré gadd ko ci yow benen bi dang nga koy def saafara di ci ray sa kanam ak sa yaram bu la nexé bu ko defé itam da ngay def bët bu set zikr bi moy ñaari rak ngay julli rak bu nek premier rak bi da ngay def euh, fatiha nga tek ci lilaay fi xoroshin 39 fois deuxième rak bi nga def fatiha tek ci lilaay fi xoroshin 40 fois comme ni nga ko gisee si bind ko premier rak deuxième rak premier bi fatiha ak ilaa fi xoreysin ngay def 39 deuxième bi nag da ngay def fatiha ak ilaa fi xoreysin 40 fois boo ko defee na nga sëlmal soo paree da nga jël sa kurus nga wirde wa jaal sa lahu maalan mamduudan 7752 bu ko defee incha allah muy ñaan bi ngeen gis sa suuf muy xam ne Cheikh Mouhidine Samb Diallo yal na ko yàlla yërëm tax ñu si barkeem nga xamante ni bokkoon na si li mu doon joxe te ñun ñi itam ñu ñu ñu jarabu ko te gis na lu saxi la muy alif laam miim allahu laa ilaha illa huwa xayul xayum alif laam miim allahu laa ilaha illa huwa xayul xayum nga koy def 484 balaa ngay génn sa kër boo xëyee balaa nga tëdd nga def yaa xayu yaa xayum yaa siin nga def ko 484 itam balaa ngay tëdd lii képp ku ko saxal te ñun ñii di wax yéen saxal ko def neen ko te gis neen si ay résultats yu yéeme yéeme yéeme yéeme wax dëgg neex yàlla gis neen si ay résultats yu yéeme am nag ay yeneen secret yoo xam ne peut am ñoo xam duñ ko mën def waaye nag ngeen jokkoo si ak ñun rek ñu seet nañ si dimbalante incha allah kon ñu ngi yem fii di leen jox dig daje suba jàmm asalaamaaleykum